<clears throat> alors salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di am mbégte ci daje bi encore yaakaar naa ne yàgg na gëj nañu def daje bu mel ni li ko waraloon yéen ñépp xam ngeen ko mu di situation wu boo xam ne dama ko doon dund ci dëj bu ma nekk ci suma soxna mu doonoon nit ku ma déggal nit ku ma jage nit ku ma jàppale nit ku ma féetewoo xaritoo ba yàlla def li mu bëgg def li ko sow ñu teg ci tuut suma goro également génn àdduna ma jàppoon ne jaadu na ma teggi sama tànk ci lu bari donte nag réew mi mooy priorité xam naa ne jotaay bi yàkkamti ngeen ko parce que kenn ku nekk mu ngi nam ma certainement ay questions pour bëgg ñu leeral mais dama bëggoon rek comme man Sénégal dong moo ma ñor te lépp lu may yëngu c'est pour l'intérêt de la nation am tiis wu dal ci suñu kaw lu tolloog ñaar fukki ndaw téeméeri ndaw cent jeunes migrants génn àdduna bi réeree ci géej gi le premier juillet ca njaago ca wetu ndar muy lu metti ma di ñaan rek et vraiment ci njekk ñu observer une minute de silence à la mémoire de ces jeunes disparus jërëjëf merci yal leen suñu borom xaare aljana li gën kawe yal leen suñu borom ubbi ñu aljana yi kawe ak képp ku fa fekk rawatina mboole mi jullit rencontre bi certainement xam ngeen ne dañu ko waroon a amal mais le le le di bis bi nga xam ne ci lañuy ñuy feete Ashura waaye démb président de la République bi sénégalais yi tànn président de la République Bassirou Diakhar Faye daal di def benn exercice boo xam ne yéen ñëpp seetaan ngeen mu di rencontre avec la presse sénégalaise ñu jàpp ne prétexte yi waroon cent jours nga xam ne def nañu ko di ñetti weer ak lu teg di ñaanal yéene bi ñu am bëgg ko ci réew mi bu dee jariñ réew mi yal na leen ko suñu borom woyafal bu ñu wàccee yoon bi it danañu jàkkaarloog ay sentinelle yu mel ni Bougane ngir ñu tegaat leen ci yoon parce que nag ki nekkoon ci tool bi di yàq tool bi dañu taxaw ñun ñëpp xeex pour ñu jële ko fi muy Macky sàll ak njabootam kon jaadu na bu suñu borom defee ñu am autorité yu bees ñun ñi doon xeex Macky Sall bu ñu leen teqatale ñu échoué bu ñu leen galgalee ñu échoué c'est parce que nu on aura également échoué li may wax nag dafa laaj dégloo ak xel pas ak xol yéene bi ñu am mooy lu defar Sénégal kon képp ku jóg pour defar Sénégal wala am yéene defar Sénégal jàpp nañu ne dañu la fekk si ci loolu ngay dox ci suñu manière c'est important ñu def cent jours moom président ma dégg ko démb ci ay kàddoom mu ne téeméeri fande néew na ci xayma waaye ci téeméeri fanam yooyu mu ne am na premier ministre bu senegal mësta am contradiction dikk na bu fekkee ne néew na ba kenn mënulaa natt war naa néew ci nga tappal nit garaat dëgg la wala du dëgg ngeen baal ma nag man wax ji leblew ma ci bëgguma ci it fay bor dama bëgg rek li ñuy wax ñu teg ko ci bëgg Sénégal ci loolu rek la nekk mais xam naa ne balaa may ñëw duggu dans le vif du sujet am na ñoo xam ne ñu ngi taxaw ci roq bi naan mais na wax ci deuxième tour bien évidemment bien évidemment xam nga <clears throat> nit nit day nite man Bougane mën naa jàpp ne dama bokk ci actionnaire majoritaire yi fi jële Macky Sall sama coono fekkew ko suma doole fekkew ko suma alal fekkew ko suma nekk ak suma njaboot fekkew ko ba ci ñi nga xam ne dañuy liggéeyandoog man sax te seen yoon nekku ci wax dëgg yàlla dañuy subiir man Bougane sama taxawaay ci wàllu politique ma leen ciy jéggulu ñoom ñëpp parce que wax dëgg yàlla amuñu lenn loo xam ne man jàpp naa ne waroon naa leen ko teg muy jafe-jafe élection 2024 yi ñu weesu suñu yéene moo doon participer ci mais Macky Sall ci njublangam Macky Sall ci ba jiibaam Macky Sall ci doxalinu teg conc rocci ak dugal ku ne gis na li ci xew waaye damay wax rek ne man dama bokk ci aji ngëm yi parce que dama jàpp ne suñu boroom lu mu def rek moo gën peut-être xëy na élection yooyu suñu ci demoon ñun tam un pour cent la ñuy am walla zéro virgule la ñuy am et na ma ne man loolu nekkut suñu tolluwaay parce que bir na ma ne Macky Sall lu tax mu taxaw ci réunion ay kilifa jàkkaarlook moom mu ne leen tànk maa ngi ci réew mi jiite ko Bougane du bokk ci élection jëfe na ko ni mu amee woon yéene boobu noonu laa taxawee man Bougane ne Macky Sall lu ko fiy jële ci loolu rek lay dox kon je dis le départ de Macky Sall man Bougane actionnaire majoritaire la ma wax ah. kaddu gu am solo ma ne leen ñun gëm sa ku ne xam na ne ñun bu ñuy natt di féetale ñun anti système lañ ñu féetale dëgg la wala du dëgg waaw mais léegi yéen ñun ñi doon xeex Macky Sall ak ñi mu àndal ñun mën nañoo bon ñi àndoon ak Macky Sall 12 ans ñooñu tey ñoom ñoo baax ah, yéen tamit. am na wax joo xam ne yenuwul maana ñun dañu taxawoon ne bu kenn fëllee ci anti système ñun gëm sa ci man sama kàddu kooku la ñuy jàppale loolu musuma ci jóga ah. pour votre information musuma jóg ci loolu mais waxtaan wax dëgg ci la nit su waxul dëgg wax safaan yéen ci seen bopp dégg ngeen ñi doon xataraayu di wax ne anti système lañu nekk ci kaso bi génn def conférence de presse ne ñoom ak Macky Sall waxtaan nañu dëgg la wala du dëgg yegg nañu ba ci ne am na ñetti point de désaccord maanaam ñetti poñ yu ñu d'accord mais man nag bokkuma ci sénégalais yi ñuy yóbbaale am na ñetti poñ yu ñu d'accordul waa léegi man dama bëggoon xam poñ yi ñu d'accord ba tax ñoom ñu génn soo gisee sab xarit sol sa tuba yu noon na mu def ba jot ci setoo boo gisee boo gisee sab xarit sol sa tuba yu noonu na mu def ba jot ci non yow seetoo ci c'est important parce que ña leen woo pour ñu négocier ñoom ñu nangu dem négocier ña leen woo li may wax Sénégal ñoo laa jàkkaarloo kilifa yi ko dox te ngeen gis ko ci presse bi ñu tudd seen tur kilifa yooyu kama ci woo ne ma j'aimerais te rencontrer pour éventuellement que tu discutes avec le président Macky Sall junju doy na borom xel ma ne ko monsieur le président dites à votre mandant ki la yónni ne ko wóoluwuma ko man suma ma la wóoluwul duma waxtaan ak yow et d'ailleurs damay dégg ci biir wax bi gaa yi naan protocole Cap Manuel dinaa leen ci gindi protocole Cap Manuel amul li may wax procureur mu ngi may dégg na ma woo protocole Cap Manuel amul protocole teeru bàyyi soogi moo am te bu ñu ma woowee ma wax leen li ci nekk waaw mais ma ne man Macky Sall laa xeex ña àndoon ak man di ma jiñ ne da xeex Macky Sall ruutaloo ak Macky Sall man sama xel warul tey man may xeex système ne man anti système la anti système boobu ruutaloo ak système waaw sama xel warul tey après ñu ne ma non non non da nga choisir ma lank ndaare. et si, et si, et si, si c'était à refaire, suba, bu ñu waroon defaat la même chose, du ma hésiter. J'allais reprendre la même décision. ba ñu cay wax yaakaar naa ne sàq mi sexoo dara ndax sa bopp la gëm sa bopp tolluwaayam du man yéen ko liggéey Mor Fall mii taxaw duma bàyyi ma fen suma staff ñii ma jàkkaar lool duñu ma bàyyi ma fen parce que ñu féete ci opposition bi au moins quatre-vingt pour cent ñëw nañu gis ma dégg naa sax am ñuy wax naan woy Bougane daf ñu joxoon kàddoom musuma jox sama kàddu kenn ñi ñëw seet si ma fii ma toog ak ñoom waxtaan ak ñoom fii ci kanamu gor yu baax yii amul kenn ci ñoom ku ma mus a jox sama kàddu ku ma waxal dama lay wax ne incha allah dana danañu organiser ndaje boo xam ne les délégués départementaux danañu ñëw toog bu boobaa ñoom ñu joxe ci seen xalaat waaw léegi bi ñu demee ba ci cëppaandaw ñu ne ñu da ngay tànn ma leen man li ma xam su ma ko waxee réew mi tos tat daal di tas parce que booba man Macky Sall jóge fi rek laa bëgg kon lépp luy dooleel Macky Sall bëgguma ko def mais man li ma gëmoon man Bougane mooy ñii jot ci réew mi bu ñu négocié wul woon toog ci biir kaso bi sénégalais yi fekki leen ci biir kaso bi jox leen réew mooy suma gëm c'est ma mere leen ba ànduma ñoom mooy li ñu dem ba ruutaloo ak ki nga xam ne man jàpp naa ne bu doon canceru réew am na moom la mooy Macky Sall moo doon canceru Sénégal après léegi on m'a dit oui waa ngi dégg sax suma yenn grand journaliste yi nga xam ne train bi daf leen fi bàyyi ñoom it ñu naan oui il rate raté le train de l'histoire mais train bi départu train boobu ñi doon dox ñoo ko jiitu train bi ma nga fa mu nekkoon ba donc yàlla bu dogalee li mu dogal daf koy nangu yàlla def na dañ doon xeex pour Macky sàllu jóge fi yàlla mottali na suñu yéene tànnal ñu ñu bokk ak ñun génération mais nag man dama mus a gëm ne nit waroo def loo gëmul nit waroo wax loo gëmul te ci loolu laa nekk dem leen ngeen déglu ji bi ma defoon dama wax wax ju leer ne leen la classe politique sénégalaise est divisée en deux camps dem leen ngeen xool vidéo bi xam nga am na wax joo xam ne waxum biir la wax joo xam ne waxum junj la wax joo xam ne bu yeggee dof yee ko moom ma ne leen la classe politique sénégalaise est scindée en deux camps un camp boo xam ne les Qataris waa Qatar xëy na ci biir wax ja ëllëg danaa ci duggaat waa Qatar ak waa Russie ñoo fa féete am ñu ñu àndal donc le président Macky Sall donc ña àndoon ca loola ñoom ña ruutaloo woon ñëpp dañoo ruutaloo pour intérêt boo xam ne intérêt bu jéggi sénégalais yi la ma leen beneen wàll mooy ñi ànd ak français yi américains yi ak anglais yi loolu laa waxoon loolu dara jógu ci de plan bi ñu ngi koy dérouler ba léegi et c'est ça qui fait que moi j'ai des informations que certainement les gens n'ont pas dama di jox benn misaal pour pour vous dire parfois politiciens yi naka lañ ñuy fowe et moi c'est ça qui m'écoeure le jeudi bi Macky Sall taxawee palais nuyu gars yi ñu naan ko wuy grand naka yaram bi affaire yooyu noonu jeudi lañ leen wan yéen ngeen gis lundi dañoo daje mardi dañoo daje mercredi dañoo daje jeudi ñu tuur ñu lëndëm foofu comme si ñu wan alors c'est même aller plus loin parce que dégg naa kenn ci landerneau politique bi mu ne vendredi samedi dimanche bi élection yi di am vendredi moom Macky Sall daje na ak ñoom génn ay photo wax la fa am te tey kenn weddiwu ko non kenn du ko weddi donc man Bougane du ma magum waxoon naa ko lépp loo xam ne lu ma wax la lu ma gëm lépp loo xam ne lu ma wax la lu ma def la lépp loo xam ne wax naa ko lu may leeral la pour askan wi ëllëg parce que encore une fois man wutuma post wutuma mos wutuma alal bu ma bu ma naree am benn dërëm bu ma sama ñaq mayul yal na doon poson ci man yàlla na suma njaboot gën a yées ci njaboot yi ci Sénégal donc du ma def lool je ne suis pas bokkuma ci registre yooyu kon li xew c'était important pour que ma leeral leen lan moo tax te bu situation bi ñëwaatoon ma defaat la même chose aw ma benn regret ci li nga xam ne ànduma ak kenn ci élection yi mais cinquante quatre pour cent yooyu ñuy wax mais ñun dañ ci bokk mais oui ah non nous réclamons ces cinquante quatre pour cent nous nous sommes actionnaires de ces cinquante quatre pour cent et eh, fu ci nekk nag fii yi nii toog fii bari na ci yéen ñoo xam ne ñoom ñooñu ngeen voter waaw damay damay nettali xam nga ñaga ñaaw ñaga ñaaw xam nga ñun dëkk yooyu yëpp dañ ko riipeñ ka nga xam ne mooy suñu njiit gëm sa bopp njaga ñaaw moo doonoon meeru njaga ñaaw moo doonoon maire Ndiaganiao quinze jours avant les élections daf ma woo ne ma président man Ndiaganiao laa dëkk doomu Ndiaganiao mooy xëccoo incha allah bëgg naa gëm sa bopp fii ci Ndiaganiao bokk ci ñiy ànd ak coalition Diomaye président ma ne ko wallaay li nga wax noonu la def ko ma ne ko ma ne ko nit mbokkam ma ne ko def ko woo Aline Diop ba mu ñëw anamu Aline Diop ma ne ko monsieur le maire yonne leen ko ay moyen jàppale ko ci campagne ba muy def yamul foofu waa mbuur yi ma gis fii ku ngeen campagne al Siré ku mu campagne lañ wax waa Mbour yéen a ngi fi Siré ku mu campagne waa léegi boo demee Mbirkilaan gëm sa bopp Mbirkilaan kuñ campagne gëm sa bopp Kaffrine kuñ campagne am waaw gis nga gis nga naa fekk gis nga naa fekk baaxul rawatina nag naa fekk bu am daraja moyul ma ko moyul ma naa fekk bu am daraja ñun la ñu doon def waa gëm sa bopp la doon def jubluwu ñu ci woon ñu jox leen i poste waa gëm sa bopp la doon def jubluwu ñu ci woon ñu fekk leen mosal leen dañu amoon benn objectif mooy Macky Sall na fi jóge et on battu pour Macky Sall jóge waa léegi Macky Sall jóge na fi ñun Macky Sall lañ bëggoon mu jóge fi waaw candidat yi fi nekkoon yëpp doon xëccoo ak a bari mais Bougane rek la ñuy xas mais Bougane rek la ñuy saag rek Bougane rek Bougane dafa mel ni ku leen reyal seen seen taaw dana nu ko lenn rek laa déggugul yéeg na ci taabal bi pour wasin loolu rek laa dégg mais lépp luy bon lépp luy wax ju ñaaw ñu ngi koy yëkkati di ko teg sama der waaye nag maa ngi leen di wallahi alazim maa ngi leen di jéggal parce que jàpp naa ne ni ma suñu borom def man te defaluma ko dara lim ma def war naa koo seet ngir muññee ko li ma nit ñiy def falaatool kon bu fekkee ne page boobu féete na boor ma ñëw nag ci alikala gi démb gi mooy dicté préparé bi jërëjëf dama am lu ma metti parce que lu day ni président de la république wax ndaje mu demee noonu wax lépp ba mu jeex tuddul ñiy daan seen doole ci réew tuddul xale yi nga xam ne xaaruñu ku leen defal financement tuddul ñi nga xam ne amuñu diplôme te tey jii góorgóorlu nañu ba amal seen bopp seenu xëy te mu waroon état je veux parler des marchands ambulants maa ngi leen di maa ngi leen di masaw maa ngi leen di encouragé dégg naa sax ñu leen di dig ay financement mais marchand ambulant soxlawul financement moo la gën a xam yow mi koy dig xaalis moo la gën a xam nu muy def ba liggéey xaalis ku ko may aafiya la soxla ku ko encadré la soxla ku ko teg ci yoon la soxla c'est clair war nañu defar oui war nañu organise mais kilifa buy jël décision day xalaat conséquences yi d'abord parce que tey conséquence su déguerpissement u ambulant yooyu mais moo waral ñenn ci ambulant yi mer jël gaal ngir dem wuti dëkk bu gën ba seen bakkan des ci may jaale njabootu aada ak njabootu njabootu élage et les marchands dañu contribuer ci xeex bi ngir jële fi Macky Sall je rappelle événement yi fi amoon en mars Ndofane Moussa dafa bàyyi jabar ak ñeenti doom marchand ambulant la woon ñu rey ko Moussa moomu deux mille vingt et nee naa ko ba say doom di am fukki at ak juróom-ñett maa leen yoreel sold weer wu de kon man xaaruma xaaruma li may def pour sama réew la donc je vais le faire Mais ces marchands ambulants, ils méritent notre respect. Nous les respecter, nous les encadrer. Les marchands ambulants, ils sont Mais nous, Jakarta, ils sont ñoom ñoo wutal seen boppu liggéey te mu waroon état ñuy góorgóorlu di dang-dangi di yor seen njaboot di ci góorgóorlu am seen dërëm seen tànk te ñooñu dañ leen war a respecter dañ leen war a jàppale mais kit de mécaniciens nga xam ne fu nekk fu ñu leen fekk jëmi leen tey jii transport nit ñi am nañu problème mu transport nit ñi ci transport bi sonn nañu jaaxle nañu dara waralu ko ay nguur yu cuune ay nguur yuy làmbaatu boo seetloo la ma doon wax ci Macky Sall yépp damay gis jeunes yu gëm sa bopp yi di dagg ay vidéo di ko dugal lépp li ma doon wax Macky Sall dafa mel ni tey ñii fi nekk ñoom laay waxal te pourtant vidéo la ñuy dagg rek dugal moo tax ci biir programme yi ñuy liggéey dañ ci liggéey liggéey bu am solo wax ne naka la ñuy encadrer marchand ambulant yi naka la ñuy encadrer commerçant yi naka lañuy fexe ba marché yi ñu daal di leen méngale ak jamono. te boo xoolee ci biir libre tekki bi on en parle on a dit yow fonctionnaire état. nga ñëw jàkkaarloog commerçant boo xam ne xamuloo nu mu def ba liggéey ay milliards nga naan ko fi ngay liggéeyee danaa la ko defaral moo la gën a xam nu ñuy def ba ami milliards ma ne ñooñu nañu leen organiser marché yi ñu def ko ay société immobilière jël titre foncier marché yi jox leen ko ñoom ñu nekk ci ay actionnaire bu boobaa ñoom danañ tabaxal seen bopp marché yi te kenn du leen taxaw te kenn du leen jàpp ma ne école bu ñuy liggéeyee xaalis amul fenn école bu ñuy jàngalee nooy amee xaalis amul fenn et man suma gëm-gëm buggaan mooy du fonctionnaire wu Sénégal yii ñooy génne Sénégal ci situation bi mu nekk c'est ma conviction gëw ma ne fonctionnaire yii c'est vrai bari nañu ils sont cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingt-un mais man ñii fi ne di ay fonctionnaire yaakaaruñu lu dul impôt xamuñu lu dul impôt gëw ma ñoom xam nañu yoon biy tax nit mën a liggéey xaalis xaw ma ko gaw ma ko c'est ma conviction gaw ma ko tey jii la nit ñi gën a sonn est-ce que tey jii yéen ñi nekk ci réew mi ñetti weer yi ñuy wax ne ñetti weer yu baax la est-ce que seen dund changé na non bu seen bu seen bu seen dund changé ngeen wax ma nee nañu wàññi nañ dem leen ci boutique yi wala ngeen dem ci commerçant yi ngeen xool fu wàññite effective au contraire ba ci mburu mi dañ ne wàññi nañ ko nga wàññi poids bi wàññi njëg gi évidence la kon tey jii commerçant yi tey la ñu gën a jaaxle moi je vois des commerçants qui étaient à Touba j'en ai vu qui sont à Sandaga tey jii fi may wax ak yow nii ñenn ñi dem nañu Nicaragua ñeneen ñi ñu ngi Chine parce que fa la ñu nekk di daan seen doole waaw bu kër bàyyi neexoon danañ dem ma ne yaakaar lañu am pour lu changer Sénégal Sénégal nag benn nit du moo koy changer ay nit ñooy méngooy xalaat ñooy méngooy gis-gis ñooy am yéene te seenug yéene du may lenn lu may fu njariñ nekk ñu dem wuti ko bu ñu ñëwee séddale ko askan wi te nangu caa gën a néew néewle loolu mooy li ma gëm mais leneen loo xam ne président fatte na cee wax démb mooy loyer yi am nga location bi dama amoon lu ma ca waxoon mais j'ai l'impression que bàyyiwu leen ma xel ba léegi ñi wara wàññi location bi ñoom ñooy louer kër yi ñi war a tax location bi nooy ña koy décider ñoom ñooy bailleur yi ñooy loué kër yi mooy ñoom punkal dégg nga démb ñu naan la ay juróomi nit ñu jox ko cinq mille parcelles neuf personnes ñu séddoo dix mille parcelles mais mais parcelles yooyu ñuy joxe coowal foncier bi coowal littoral bi mais amul fu coow musa am te ñoom waa impôt et domaine cëraluñ leen fu ñuy dagg suuf ñoom ñooy njëkk a séddu mais président dégg naa ko nangul suuf yi président nangul suuf yi suuf yooyu gaa yi séddoo nangu ko nit warul am nee nga deux mille parcelles commencé ci sa bopp mais président Diomaye na commencé boppam il a quatre hectares trois cent quatre hectares trois cent deux cent kër mën na cee génn kan moo ko ko jox actuel ministre boo xam ne ci moom la féete mooy li may wax sànq ministre boo xam ne Macky Sall la àndal douze ans bi élection yi ñëwee mu roof marche arrière ñun ñu doon xeex Macky Sall opposition ba boobaak léegi ñu ne non ñun baaxuñ mais kooku rocc ko ci Macky Sall non ñoo ñoo baax la la làmmiñ làmmiñ làmmiñ làmmiñ bu waxul dëgg wax leneen kon ngeen xam ne li ñu jàpp mooy liy defar réew mi dong mooy li ñu tax a jóg te it ci ci loolu la ñu nekk boo gisee nit ñi am lu leen metti dañu waxoon ne dundinu état bi dafa ëpp nit ñi état bi ni muy dundee dañ ko war a wàññi ma ne leen est-ce que man Bougane dama gëm ne Macky Sall defut lu baax ci Sénégal moom loolu laa gëm Macky Sall jël réew mi pàcc pàccal ko fu nekk mu def fa direction fu nekk mu jël nitam roof fa yow nga ñëw jël nguur gi. Macky Sall na mu pàcc pàccale woon direction yi nga bàyyi ko fa jël say nit yow it roof c'est comme pour dire Macky Sall li mu doon def baax na alors que man dama gëm ne Macky Sall li mu liggéey lu ci bari moom cancer au Sénégal la kon rationalisation dépense u état ak train de vie de l'état loolu encore une fois soxlawul majorité assemblée nationale pour wàññi li état bi dundee ak li état bi jëfe soxlawul ñu dem assemblée nationale ngir ñoom ñu ëpp fa parce que loolu ay décision la yoo xam ne ki yor caggal guy gi moom moo ko war a jël malheureusement c'est pas le cas dañu waxoon dañuy def appel d'offre appel à candidature mu am ay jeunes sénégalais yoo xam ne dañu xeex boobaak léegi jàpp ne bokkuñu ci kër yi nga xam ne dañu leen di defal coup de ñu jàpp ne ñoom war nañu bokk ci liy defar Sénégal di xaal appel ak candidature fulaas dallu xëddeen dégg naa sax léegi ci biir débat yi boo leen waxee appel à candidature ñu ne dañu ne woon pour certains postes certains postes de bu fekkee ne li fi nekk yëpp joxe ngeen ko lan moo ci des lu fi des lu ñuy joxe amul dara amul dara loo xam ne moom moo fi des lu ñuy joxe kon nit ki li mu diggee da fexe warloo ak moom dégg naa président mu ne bi muy ñëw fekk fi fon politique euh, monsieur le président monsieur président man Bougane Gueye maay wax ak yow monsieur le président le rapport d'exécution budgétaire bu premier trimestre deux mille vingt-quatre mi ngi ci sa table oh, man waxantuwuma de président li mu wax ci fonds politique yi amul waa léegi d'accord Macky Sall lekk na fonds politique yi moom nee na fekku fi fonds politique dëgg la fonds politique mbind mi maanaam kaddu gi fonds politique amul mais eh, fekk na fi fonds spéciaux waaw le rapport d'exécution budgétaire bu deux mille bu premier trimestre deux mille vingt quatre moom président de la république dama ne ko je le mets au défi budget présidence vingt deux milliards lañ ci lekk lañ ci consommé la ca des anam bu ko Macky Sall lekkee nañ ko woo mu ñëw ñu dóor ko ci mbaam comme nim leen defoon moom nañ ko bu ci kaso document bi mu ngi ci taabalu président ce document la mu ngi ci taabalu président le budget de la présidence de la république vingt neuf vingt huit pour cent lañ ci consommé li ci des anam le budget global vingt quatre virgule quatre pour cent la ñu consommé ci des anam donc moom président bu ne fekk fi fonds politique waaw nañu wax fonds spéciaux yi anam et, et encore une fois et, et encore encore encore une fois encore une fois wutuma lenn lu may mu leer man Sénégal rek moom ma intéressé lii ba ñu ko déposé lii trente mais je crois lañ ko déposé mu ngi ci taabalu assemblée nationale président wu assemblée nationale moom président am na ci copie yeneen ci structure am nañ ci copie du document bu confidentiel nag balaa ñu naan woy gars yi naan ko nëbb jant bi lii du confidentiel gis ngeen kenn bind ci confidentiel parce que alalu réew mi la alalu réew mi ku nekk ci ñun mën na koo saytu. kon moo tax bi ma ko déggee mu ne caisse noire en fait fonds politique fekk ko fi xam nga politiciens yi dañuy nax sénégalais xam nga bu la nee fe man fekkuma fi fonds politique nga ne waaye gars yi dóor nañu fonds yi lekk nañ ko mais yow fonds yi li ñu voté vingt deux pour cent du budget vingt huit pour cent du budget la ñu consommé ci au niveau de la présidence et globalement vingt quatre virgule huit pour cent la ñu consommé mais ci faqul bënnul la fa newoon jógu fa ñu wax fu mu jaar mais alikala gi mooy ñoom dañu waxoon ne foo politique baaxul dañu waxoon ne foo politique dafa xaraam man ci sama document programmatique dama ne foo politique yi dañ ko war a décontabiliser xam fu mu jaar fu mu jëm ak naka lañ ko jëfandikoo man loolu laa waxoon te ñoom nee nañu foo politique dafa xaram mais démb seen waxi démb ji wax ju leer la nee nañu foo politique dañ koy soppi foo secret waa léegi wax leen ma yéen six ak neuf ndax boo ci juutal day wuteeg morom ba alors donc nañu bàyyi di nax Sénégalais man ci loolu rek la rek moo ma intéressé Sénégal rek moo ma ñor dégg naa ci biir kàddu yooyu nga xam ne sax yëkkati nañu ko parce que Bougane daf leen jaaxala ah. man dama jàkkaarloog nguuru Ablaye Wade quand je dis jàkkaarloo sur le plan politique jàkkaarloo ma woon ak ñoom mais dama amoon groupe de presse boo xam ne dafa amoon ligne éditoriale lu reporter wax sax ñu ne waaja moo ko ko waxloo te yàlla xam na ni nit dina liggéey foofa ba génn fa yàlla xam na ni du ma gis keroog dama doon waxtaan ak Sarma Ibrahima Salma Ibrahima Fall bu Walf mu wax ma ne ma effectivement man jaar naa des médias mais man musuma laa gis pourquoi parce que am na ay nit ñu fa nekk ñu professionnel ñuy liggéey d'ailleurs c'est le lieu de les féliciter parce que démb gis naa leen ñu diffuser euh, le show du président pourquoi mais mënoon nañu bañ ne duñ ci bokk mais parce que c'est des professionnels et xam nañ ne li ñuy def service public la pour askan wi la waaye du pour Bougane du pour keneen gis nga nit gis nga nit da xam raison garder et ci loolu laa nekk des médias ay nit a fay liggéey des médias ay nit ñoo fa nekk des médias ay professionnel ñoo fa nekk di liggéey dew ma fa soluma sama dàll yegg fa bu ma buñ ma gisee ci seeni locaux événement la maanaam événement lañ koy def parce que duñ may gis du ma fa dem démb bërki démb dafa am ku ñëw fii ñuy waxtaan ma ne ko deuxième Euh, euh, premier étage ci fii am na société bu fa nekk mu ne ma waaw ma ne ko ça fait quatre ans tegu ma sama tànk te man sama bureau sixième la quatre ans tegu te sama bureau parce que moi je fais confiance à l'expertise sénégalaise dama gëm Sénégal dama gëm sénégalais et ma jàpp ne bu ñu leen encadré lu lépp lu ñu bëgg def mën nañ ko def waaw léegi man bugaan nguuru Ablaye Wade xeex ma nguuru Macky Sall ku ne xam na ne aw ma tarafatal ay ni ci ñoom idem comme nguuru Ablaye Wade man Ablaye Wade musul xam sama soxla ku ànd ak Ablaye Wade musul xam sama soxla Macky Sall musul xam sama soxla ku ànd ak Macky Sall mësta xam sama soxla musuma dem sax bu dut benn yoon mooy ci logiciel bi ma leen waxoon ne dama ko defoon pour xeex corruption ci alkaati yi ci wàllu transport ma dem ci premier ministre ba woon muy Mimi Touré parce que moo doon désidé ak yeneeni kilifa ci gendarmerie ak ci police lu ko mooy man ku ma xam-xam na ne maa ngi sama dox donc man nguuru Macky Sall xamuñu sama soxla nguuru Ablaye Wade xamuñu sama soxla ma dégg ministre bu mën a fen boo xam toog ci télé non mais c'est vrai ces gens sont malades comment nga mën a toog ci télé naan Bougane état moo ko enrichir man man Bougane Gueye su ma baat poto musuma gagné marché état ku may mus gis Bougane société bu gagné marché état génne ko musuma musuma gagné marché état man ndaare bu génn pay la man dama fay man lépp lu ñàkk dut maye soxlaw ma ko li ma am bi ma commencé d'accord mais lépp c'est dans le privé budget publicité yi mu doon gérer au niveau de d'accord mais ku ne xam na ne Euh, yor naa fi IBM yor Nokia yor naa fi Baby Nutrition Danone yor naa fi Western Union Emirates et cetera et cetera y en a énormément et, que les gens oublient c'est que Nokia je gérais Nokia en Afrique de l'Ouest excepté le Nigeria et j'étais le, euh, euh, manager de Grey Worldwide West Africa donc il faut que nit ñi bàyyi di sos il faut nit ñi bàyyi di yàq der il faut ñi bàyyi di calomnier il faut ñi bàyyi di sosal doomu aadama yi ak di sosal gori dem nañu léegi ba ci coowal impôt nga dégg ñu naan oui et puis c'est c'est c'est quand même malheureux quand j'entends le président de la République piètre en mathématiques mu ne oui boo jëlee communiqué cent mille francs am nga TVA mu nekk cent huit mille un bon inspecteur des impôts xamuloo ne TVA dix huit pour cent la xamuloo ne TVA dix huit pour cent la et non xam nga buñ ko présenté noonu bu fekkee ne moom président moo wax noonu nga wax ak benn nax sa xandang benn naba bu mel ni Bougane da nga naan non li mu wax dëgg la alors que yéen ñi yor entreprise Sénégal ñoo may seetaan xam nañ ne TVA da def. TVA bi nga encaissé bu weer deewee TVA bi nga encaissé ak TVA bi nga dépensé nga def balance bi moom ngay déposer impôt bu positive ci yow ça veut dire impôt moo la yoreel TVA bu fekkee ne dafa négatif ça veut que yaw yaa war a dollil impôt TVA donc xam nga kon buñ ko présenté ne woy woy da ngay jël euh, TVA bi tàgge bi 18 pour cent nga lekk ko xam xam nga xam nga des médias ñaata lañ leen di laaj TVA presque un milliard et, et je vous dis comment ça s'est passé un inspecteur des impôts moo toog ci bureau xam nga ceebu inspecteur nag niroowul ak ceebu ñoom saar ñoom ay enseignant lañu dóor sa ceeb ba nga cil dóor trois normaux split bi di di la di la upp nga ne non xaaral non des médias xaaral ma dóor leen un million un milliard a je dis c'est pas sérieux c'est pas sérieux man des médias aw ma fa litre essence man des médias fayuñu suma salaire fayuñu musuñu maa fay salaire immeuble boobu ñu nekk immeuble boobu maa ko moom musuñu faa fay loyer ne pensez pas que les gens qui sont dans les médias médias moo leen di jox vous pensez que ñi nekk ci média bi média moo leen di jox xaalis mais yéen ñi yor site yu ndaw ndawaan yi yéen xam ngeen ne xam ngeen li ci nekk xam ngeen ne lu ngeen toltalaanul lu ngeen góor góorgóorluwul lu ngeen defalul seen bopp mais amu leen ko donc bu ñu jël jeune reporter yi di leen dóor ci kaw patron de presse bu ñu jël ces vaillants cadreurs di leen dóor ci kaw patron de presse dégg naa sax ñuy wax naan oui dañuy jël seen BRS wala VRS dagg la impôt yow liggéeykat bi après duñu ko verser ñun man lima jiite man xam ko nañ ñu ci këccët bokkuñu ci non yamuma foofu j'ai demandé à la direction de des médias Sen TV et Zik FM ñu wax képp kuy liggéeyee foofu na dem demal boppam mu vérifier ko ku ko ñeme na ko wax dama ne leen ils sont en règle avec toutes les institutions sociales et même fiscales bu ngeen fàttalikoo deux mille vingt et un bi ñu ne dañuy dagg dañuy dañuy amnistier presse dem leen ngeen xooli vidéo yi deux mille dama ne leen man D-Media bi ma moom man Bougane këccët leen ma ci bokkuma ci en deux mille vingt et un c'est pourquoi parce que man d'accorduma ñu amnistier la presse d'accorduma ci et puis du président mooy amnistier la presse fexe ba presse bi mënal seen bopp ba kenn du leen baalati impôt loolu moom mooy Ali Kalek waaye du ne chaque année nga ñëw baal leen parce que xam nga ne ñu ko fay et man dama gëm du président moo war a baale assemblée nationale moo war a baale impôt kon ba may wax deux mille vingt et un ne nañ ma ci këccët wax ju ma gëm la woon te ci wax ju ma nekkoon la kon man mënuma bokk ci ñu ñuy présenté comme étant des délinquants fiscaux man man lor rek déjà man ngaa lor rek nga ma mën a waxal man sama waxalul lool la nga may waxal man mënoo ma waxal lenn du ma toog du ma naan sàngara du ma nangam nangam du ma nangam nangam leneen mais kon lan lañ ma mën a waxal kon mënuñu ma waxal dara loolu rek lañ ma mën a waxal euh, nga nga xool nga xool ma ne ma ne pourquoi pourquoi ma koy wax pourquoi ma koy wax s'il vous plaît s'il vous plaît lu tax ma koy wax lii notification d'absence de redressement nee naa leen des médias mënul def un milliard chiffre d'affaires Boss SA nga xam ne c'est une société d'ingénierie informatique man ma moom ko ànd ci ak ay nit ay jeunes sénégalais ñuy liggéey lii document wu impôt ku ne xam na ne lii document wu impôt ñoo ko signé dañoo ñëw ñeenti weer nekk ci suñu bureau di gëstu parce que nee nañu ci juróomi at yi ñu liggéey ñun juróomi benn at yi ñu liggéey ci bos xaalisu jooni jooni toll woon na ci junni milliard ak ñaar fukk ak lu topp man man junni milliard ak ñaar fukk nga ñëw gëstu ñeenti weer gis ne man fistin dërëm yoreelu ma ko impôt bëgg a bindal ma këyit jox ma ngi nii notification d' absence de redressement waaw léegi nga toog ba deux mi nekkoon ci opposition bi démb te naan bugaan liñ koy songe du dëgg la nga doon wax naan du dëgg tey jii nga bëgg taxaw naan non non non na gars fay impôt quoi ay sàcc la faut qu'on sérieux il faut qu'on soit sérieux politique baax na mais parparloo moo bon politique baax na mais ni ñu koy defee moo ñaaw mais qu'est-ce qui a changé et puis bu ñu présenter dossier wu fisc bi temps yi da ngay def da ngay dem bay jàpp ne dossier bu bees la beesul du dëgg lii mooy dossier bi fi amoon en deux mille vingt et un et xam nga wax baaxul daal xam nga deux mille vingt et un dama génn yeewi askan non c'est important parce que dossier bi dossier fiscu des médias foofu la jóge dama génn yeewi askan wi et ku ne xam na ne comme ñoom ay janaxi dàmb la ñu woon ci biir impôt ñoom ci seen bopp ñoo déclenché des opérations de vérification contre toutes mes sociétés je dis bien toutes les sociétés bu Bougane moom dañu déclenché opération de vérification toutes les sociétés bu Bougane moom ñu déclenché opération de vérification mais ca booba la suñu premier ministre toogoon ca Ziguinchor yónnee def benn post ne Bougane li ñu koy songee ci impôt acharnement la dossier boobu mooy nekk ba tey waaw dossier wu bu fekkoon ne acharnement la deux mille vingt et waa Macky Sall def ko waa deux mille vingt quatre kay kon xanaa acharnement bi war a jeex aussi simple mais malheureusement il est important de vous dire que nous on a combattu un système mais malheureusement les acteurs du système sont au pouvoir je dis les acteurs du système sont au pouvoir kon la ñu doon wut ñun ci rupture des na et j'ai bien aimé la phrase de Babacar Justin Ndiaye quand il dit le populisme c'est le patriotisme des idiots nañu liggéey Sénégal nañu bàyyi caaxaan réew mi bu ñu ko caaxaan man Bougane ku ma xam xam ne liggéey rek lay def man awma beneen passe temps awma beneen distraction man suma ma passe temps sama passion yëpp liggéey la dégg ngeen fii quand je parle de la justice faut en parler ñu def fi les assises de la justice parce que pour man jaru ko woon xam nga fi nga jëm xam nga li nga war a def na nga koy defee xam nga ko ay nit nga àndal ñu xeltu ay borom xam-xam nga àndal ñu liggéey ak yow nga jaay un projet projet boobu danga ko war a exécuter et ci njëkk mooy indépendance su justice et indépendant su justice dégg naa ko démb mu waxaat ko mooy moom narul génn ci conseil supérieur de la magistrature sañ-sañam la au du bilan les sénégalais danañ ko teg ci taabal mais li ma mooy on la justice fait son travail dans ce pays il faut pas que ñuy fragiliser suñuy institution regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale un premier ministre qui dit duma ko def am na ci sañ-sañ parce que règlement bi normalul am na ci sañ-sañ mais président bëgg ñoo gëmloo ne assemblée populaire ba ñu waroon def non loolu mënoon naa nekk parce que ay borom xam-xam mënoon nañ faa teew un président de la République. Tu appelles le président de l'Assemblée nationale. À la limite, tu lui intimes l'ordre. Mané, tu appelles Néna. C'est important. Néna. Parce que nous, c'est ce damay je dis, moom nee na moo woo président assemblée nationale ne ko seen yooyu ngeen def lijjanti leen ko xoolaat règlement bi dëgg la loolu la wax na alors au même moment tu appelles ton premier ministre nga ne da nga koy ñaan la deuxième personnalité de l'État ñaanoo ko mais ka topp ka tofom tofom moom moom da nga koy ñaan soyons soyons sérieux il faut pas qu'on fragilise nos institutions État du caaxaan conseil constitutionnel lu ne wax nañ ko fi conseil constitutionnel bu taxawu toon xëy na tey fii ñu toll ci Sénégal du ñu ko toll parce que nag dañoo voté ci ëllëg sa ñu dem liggéey Macky Sall dafa bëggoon tas Sénégal conseil constitutionnel ne ko non kon institution yu dëgër dañ ko soxla institution yu am doole dañu ko soxla bu ñu caaxaane suñu réew bu ñu caaxaane Sénégal bu ñu taxaw aussi di wax nit ñi naan leen dañu soxla majorité assemblée pour yeggale liggéey bi ma ne mënu leen taxaw ne réew mi dafa metti takk leen seen ndigg gaa yi takk seen ndigg au même moment yéen yéen a ngi gundaandaat yéen a ngi noos yéen a ngi ak seen i politique gis naa sax ñuy joxe ay xar ak i chèque ci ñu ko mënutoon kon bu ñu fooyee Sénégal justice boobu dañ leen war a respecter moi j'ai confiance à la justice de mon pays et pour vous dire la ma doon xeex démb mais tey jii la gëna a gën a nekk d'actualité dégg ngeen ci benn coow ñu naan woy Bougane immeuble am dañ ko saisir non ma ne c'est important aussi loolu ma wax bi nga déggee ñu ne Bougane immeuble lam dañ ko saisir dama génn def poste ne leen banque bi wax loolu fen na ne leen banque bi njublang la te ba tey déggu leen banque bi tont non ma ne ma ma may leen may leen ma may may leen ma may leen ma li ñuy wax dafa am solo il faut sénégalais yi comprendre cent millions lañ ne moom la ñuy toppe société boo xam ne man maa ko moom moom société ak yow sa alal nekk benn ça n'a rien à pourquoi muy banque boobu LBA maanaam crédit agricole ku moom crédit agricole non ku moom kan moom moom crédit agricole état bu Sénégal moom moom crédit agricole ñoom Macky Sall comme man bi may def jooni jooni licence su crédit agricole laa doon utiliser dañoo jàppoon ne bu ñu daggee collaboration bi ak crédit agricole buggaan tos ko rek ñoom ñu bind lettre dagg collaboration bi fekk na en 2015 BOS SA mooy société d'ingénierie informatique boobu ma leen doon wax dafa def benn prêt trois cent quatre vingt dix huit millions xam nga prêt boo koy def dafay am yéen enseignants yi xam ngeen prêt day am convention de prêt après bu dee ñun société yi dafay am costion solidaire lii la ñuy wax costion solidaire costion solidaire pour benn opération la mooy opération prêt bii ñu souligner muy trois cent quatre-vingt-dix-huit millions tribunal bi commettre expert expert bi ne leen prêt bi Bougane garantie société bi prêt boobu fay nañ ko ba jeex na tàkk société bi muy bos SA am découvert bu million cent millions may leeral ne découvert société boobu dadoon dem ba deux milliards te kenn mësu cee wax ku sañ jàkkaarloog banque ubbi compte di ronki di ronki di ronki ba mu yegg deux milliards te newoon la taxawal te parce que wóolu nañ dëgg la wala du léegi banque bi ñoom bi ñu arrêté parce que dañ leen jox ordre ne leen arrêté leen parce que man damay business mais damay ànd ak caay-caay nag man maa leen wax ne leen continuer leen ci découvert yi parce que bu ngeen continuer ci découvert yi ñoom du ñu sañ a taxaw mais comme état dafa am doole 600 millions du dara ci ñoom ñu ne nañ nañ nañu nañu arrêté collaboration bi ak Joni Joni léegi banque bi pour récupérer 600 millions am yooyu xam nga amul garantie amul convention de prêt amul dara ñu jël costion bii ma defoon pour prêt ba la nga xam ne fay nañ ko jël ko dugal ko ci dossier bi ne moom mooy cautionner 600 millions yi ñu may laaj. xam nga man nag kaay xeex xam nga gënal kaay lekk ma ne leen bu doon un franc du ma leen ko fay nañu dem ba yëf bi ses c'est comme ça que ça s'est passé donc amul lép lu ñu ci wax waxi kasaw kasaw la ak wax joo xam ne waxi nax saxandal dama leen wax ne leen je mais au défi la justice sénégalaise et c'est important que IGAJ dégg ko c'est important que conseil supérieur de la magistrature dégg ci jaay doole la ñu nekk pour nangu immeuble bi ci man parce que amuñu encore une fois amuñu caution solidaire amul amul benn caution bu mu ne génne man Bougane signé ko wallahi alazim billahi wallahi wa tallahi amul amul fenn foo xam ne man signé naa fa convention de prêt ak banque bi amul waaw bu convention de prêt amul caution amul mais noo ko wax ne yow sa immeuble bii kat dama koy nangu pour nga fay ci bor c'est exactement ce qui s'est passé alors loolu ma jàpp ne moom président de la république je l'interpelle man liggéey dong laa xam xaw ma leneen lu dul liggéey bu ma gisee ñuy néewal doole doomu aadama dama ciy xar sama tànk tubéy kon moom président de la république na xam ne am na ay sénégalais yoo xam ne à partir de l'administration à partir de la justice ñu ngi leen di indil ay jafe-jafe te dara waralu ko lu mooy politique kon nañu xool nu ñu saafara coow loolu beneen bi nga xam ne maa ngi ci ñëw muy wàllu wàllu mbay dégg naa ñu ne engrais bi doy engrais bi wàññi nañu ko ñu ne wàññi nañu ci engrais bi njëg bi vingt pour cent ma ne leen ci àdduna njëg bi wàcc na trente pour cent diis yi kay tegal leen ko béykat bu leen ko jël ngir yàlla ñu ne engrais bi doy na ma ne leen demal commune wàkk nguna boo demee commune wàkk na ba fi may wax ak yow tey tey tey tey tey commune wàkk nguna engrais ba kenn distribué gu ko commune Ngayeen Sabax boo fa demee fi wax ak yow nii dañu am problème ci séddale ma boo demee dans la zone de Katchon nga dem dans la zone de Katchon la zone de Jànke Suuf ñoom ñëpp problème yooyu lañu am baykat bu ci nekk baykat bu ci nekk dañ ne du ñu weesoog yow ñeenti saaku engrais alors que li ñu soxla ñoom ëpp na loolu dégg naa monsieur le président démb mu ne ministre de l' agriculture mu ngi wër di installé ay coopératives billahi amul benn coopérative bu ñu installé bu ngeen gisee coopérative bu installé yéen ci baykat yi woo leen ma wax ma amul fenn fu ñu installé coopérative dafa nekk ni nee na les acteurs te bu ñëwee day ñëw fekk la nga taxaw yow nga góorgóorlu punkal mu góorgóorlu bàyyi njabootam góorgóorlu ba am fukki nag ak juróom-ñett nga naan ko way jaayal juróomi nag yi quoi nga investiraat yow kay ku am fukki nag ak juróom-ñett góorgóorlu encadré ko mu fexe industrialiser lu muy def yow nee nga am nga xam-xam yow du nee nga xam nga nu ñuy développer projet mais de grâce monsieur le ministre dimbale leen baykat yi baykat yi ku leen yërëmul waaye waay waaye na leen bàyyi ak li ñuy yor nos agriculteurs sont fatigués parce que tout simplement dañu leen fulaalul parce que tout simplement bàyyiwuñu leen xel fi may wax ak yow nii matériel agricole mooy mooy tracteur yeeg yooyu da ngay gis tracteur bu ñu teg ci euh, oto di ko yóbbu waa douane bi kar leen ne leen wuy jox leen ñu këytu oto bi këytu tracteur bi waaw këytu tracteur kay tracteur bu ñuy nem di ko yóbbu xanaa kay ka dugal tracteur bi ci réew mi kay kooku nga war a waxal waaye du baykat bi war a réceptionner tracteur bi pour mun a def liggéey bi mu soxla donc ñu bàyyi populisme bi nañu bàyyi nax bi nga xam ne ci moom la ñu nekk depuis lors di nax askan wi di nax askanu Sénégal parce que nag ce pays a besoin de de de de de de ces de ces pour véritablement ñu mën a yegg ci li nga xam ne euh, moom la ñuy wax booba ak léegi leneen loo xam ne bàyyi naa ci xel muy président nee na nee na courant bi non balaa may wax ci courant bi sax nee na producteurs yi bi mu ñëwee fay na leen moom kañ la toog 2 avril diggante 2 avril ak fin avril kay boo fi génnee 40 milliards loo fi fekk la jar naa fëgg dënn ça veut pas dire que damay défendre Macky Sall mais man dëgg moo ma intéressé mënoo ñëw taxaw bëgg wax askan wi ne yow yaa fay alors que fayuloo dépense budgétaire yi ñu prévoir tey jii boo gisee jafe-jafe yi am ci wàllu mbay mi ñaata milliards la wax lañ dugal ci mbay mi ren du cent vingt milliards te que gars yi <laughs> gars yi xam cuune lañu dañu yaakaaroon ne cent milliards yi ñu déggoon daaw dañ koo dañ koo juug alors que xamuñu ne boo déggee ñu ne cent milliards def nañ ko ci mbay mi dañ koy planifier maanaam li ñuy fay ren jii daaw lañ ko la ko ay opérateur lebi woon ci banque yi donc ren boo ñëwee yow ne da ngay auditer wax ko fépp ñu ñu dégg la waa banque yi doon lebal opérateur yooyu ndax dinañ am courage lebalaat leen moo tax nga gis suuf si ci semence yi moo tax gars yi di dóor marto moo tax nga gis ci njublan gu metti goo xam ne am na ci parce que tout simplement man li ma gëm mooy baykat bi dafa war a nekk aujourd'hui un entrepreneur agricole nañu leen jox encadrement bi war pour ñu mën a demal seen bopp mooy man li ma gëm parce que damay dugg ci àll bi dama leen di fekk ci seeni tool damay gis jafe-jafe yi ñuy jànkonteel mais dama ne nit ki tant que moomul suuf bi muy bay mënul industrialiser liggéey bi muy def mënu koo mécaniser kon li njëkk mooy fexe naka lañ mun a def ba baykat yi suuf sa nga xam ne moom la ñuy béyee ñu mën koo moomal seen bopp moo gën ñu jël suuf si di ko jox ay ndoxandéem di ko jox ay nit ñoo xam ne bitim réew la ñuy jógee ëpp ñu alal ëpp ñu doole ñu soppi ñu ay surga ci suñu biir dëkk il faut qu'on arrête cette histoire la et encore une fois on a confiance ci ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw pour xeex loolu surtout ñi nekk ci monde rural parce que nag booba ak léegi am na ñoo xam ne jóg nañu c'est important d'en parler courant bi sénégalais yi sonn nañ woyofal diisal la dégg naa président ne bi mu ñëwee gars yi dafa am ay ndëgg sërëx yu ñu defoon ba wuy euh, bateau bu saar waroon a régler saar dañoo waroon fay bateau fayuñu ko mais li ñu war njëkk régler pour man ci sama xalaat bu gàtt mooy xaalis bi état bu Sénégal di yoreel SAR parce que état bu Sénégal day yoreel SAR xaalis bu bato pétrole ñëwee pétrole brut laata ñu koy soppar ñi laata ñu koy raffiner dafa am part boo xam ne état bu Sénégal moo koy supporter part boobu état bu Sénégal di supporter subvention la léegi subvention boobu dañ koy dajale mu nekk ay bor bu ko defee SAR du mën a fay waaw léegi kay nañu góorgóorlu ba état bu Sénégal dootul yoreel SAR xaalis parce que nag li ñu banque mondiale di teg li ñu FMI di teg parce que dañ ne subvention bi dañu koy teg parce que am na cent cinquante mille familles yoo xam ne dañuy consommer en deçà de cent cinquante watts mais ces famille la ñu ne dañ leen encadrer daneen leen subventionné mais am na ci ñi ci des am na ci ñoo xam ne fii dañuy consommer la même chose boo xoolee état bu Sénégal li muy def ci subvention ci diggante hydrocarbure ak euh, wàllu courant ak ñoomin seen même yegg na presque mille milliards mille milliards yooyu am na fu mu xaj six cent milliards voire sept cent milliards yeneen yi nga xam ne dañ koy def subvention jëme ko ci wàllu blé jëme ko ci wàllu ceeb jëme ko ci wàllu diwlin mais ngalawaay nañu góorgóorlu xaalis boobu ñu dugal ko ci askan wi parce que askan wi mën nañu liggéey li ñuy dund ci biir réew moo tax bu ma gisee sama mbokk commerçant saa yi dama leen di yërëm bu ma gisee marchand ambulant yi dama leen di yërëm moo tax bi may dégg ñu naan nañ leen jox xaalis pour financer leen marchand ambulant bi li muy tere taxaw di ko jaay fu mu koy jëlee Chine lay jóge wala Dubai naka lañ war a mun a def ba góorgóorlu ba marchand ambulant boobu wala commerçant bi dem di importer ji à partir des données yi waa douane yor ñu identifier leen état day stratège état day yeewu état day muus état day muus mënoo dëkk ci nekk consomateur fexeel ba la nga doon jëli Chine ña doon dem di jënd Chine ñu encadré leen ngir li ñu doon jënd ñu mën koo defal suñu bopp fii ci biir réew mi c'est la même chose monsieur le président dégg naa la ngay damu di fëgg sa dënn naan wuy da nga wàññi engrais bi ah wàññi njëgu engrais bi du du du du performance xam nga luy performance fexe ba ICS suñu phosphate bi ñuy jël di ko yóbbu Inde di ko transformer di ko def phosphate di ko def ure di dellu si di ñu ko jaayaat ñun ñu jël phosphate boobu transformé ko Sénégal ngir baykatu Sénégal mën a jot ci engrais bi ci prix bu gën a néew par la même occasion par la même occasion bu ñuy wax ci wàllu impôt j'en profite pour passer le message mais ICS <laughs> ñaata la yoreel Sénégal deux cent trente milliards am na beneen société bu tudd Somiva xaw ma Sodiva am nga ñaata lañ yoreel état bu Sénégal mille milliards waaw léegi après nga ne wuy da ngay telli telli pour gars yi nga xam ne ñi ci presse bi nee nañu dañu yore quarante milliards et quarante milliards presse boobu ngeen baal ma nos amis de la RTS merci d'être venus parce que je vous ai jamais vu merci je je je félicite par la même occasion Pape Alé parce que c'est ça aussi nit Euh, bu defee liggéey danga koy rafet RTS ñun ñëpp ñoo ko moom donc RTS bu ñëwee couvrir ñu normal maa ngi koy sant parce que amoon na sañ-sañu bañ ko def te bu boobaa it kenn du ko kenn du ko kenn du ko ci ngañ alors li ma doon wax mooy bu fekkee ne wàllu milliards yooyu ñuy wax ne presse bi dañu war a fay quarante milliards mais li ngeen xamul ci presse bi war a fay quarante milliards RTS APS ak Soleil ñoo moom 30 RTS APS ak Soleil ñoo moom 30 yi ñoom ñoo ko war a bay bokkul ak dara ñun ñii suñu pepp yi ñuy wax ne lañ ko war a fay donc c'est c'est juste important à mon sens pour que lu ci bari lu mel noonu ñu war ko mun a wax parce que ce pays nous appartient bari na lu ñu digoon dañu waxoon dañuy génn franc CFA duñu génn de fenn lañ dul génn duñu mus a génn franc CFA wax la woon annonce rek parce que xam nga il faut ñu waxante dëgg gis nga man dama mu xam nga man ngeen baal ma ci kàddu man du ma wax mukk niir lu neex doomu aadama bi ñuy wax waxu génn franc CFA ma ne leen yéen nu nit mu ne nekk ci néeg bu climatisé nga séen ku taxaw fële ci naaj bi nekk 40 degré nga naan xaaral ma dem mosi 40 degré yi nu mu mel mais réew yi nga xam ne dañu amal seen bopp seen xaalis bari nañu xaalisu Ouguiya Mauritanie fan lañ koy imprimer du Allemagne xaalisu Cap-Vert fu ñu koy imprimer et cetera et cetera dañu war a am ñun suñu souveraineté dañu war a jël suñu yëfi bopp defaral ko suñu bopp mais CFA ñun ñoo ko moom tey ji réew Guinée yow xam nga luy xaalisam xamoo ko ñoom CFA rek nag la ñu wut moom lañ bëgg réewu Gambie dalasi la buñ la joxee million ci sac lañ koy def nga gàddu ko xaalis suñu xaalis la ñu wut idem idem idem tey jii waa Mali waa Niger ak waa Burkina du nee nañ génn nañ CEDEAO lu tax génnuñu génnuñu UEMOA kañ ngeen dégg ne lancé nañu seen xaalisu bopp ñu dañuy lancé xaalis bi da ngeen dégg ñu def ko duñ ko def parce que doole ji mu laaj amuñu ko parce que li mu laaj ci garantie amuñu ko donc lillahi wa sul yi nañu bàyyi di wax nit ñi ay waxi dof parce que boo jàkkaarloog un jeune désespéré nga ne ko li la indil problème mooy xaalis bi nga xam ne day jaar fii day jaar fii nit da ciy lekk lii diw da ciy lekk lii tey jii boo jëlee xaalis boo moom nga bëgg a dem Chine dem jënd ji marchandise suñu xaalis ngay yóbbu ban xaalis ngay yóbbu du devise devise boobu boo koy yóbbu fu muy jóge ci yeneen réew yi lay jóge donc da ngay jël yow sa xaalis dem jënd ci devise pour mun a dem Chine wala nga dem Dubai donc nañu bàyyi caaxaan. réewu Ghana le Ghana bi seen président bu bees bi ñëwee dafa ne moom wuy yëf yi da koy soppar ñi dafay xam nga ñaata lañ nekk ci inflation inflation wu gana xam nga ñaata la vingt quatre pour cent inflation bu réewu Nigéria mu ngi trente xaw ma trente sept pour cent ça veut dire quoi tey jii boo yoroon bu ndox bi muy jàll mille francs bu inflation amee trente sept pour cent boo moytuwul dana jar trois mille sept cent maanaam njëkk yi ci boppam day yokku parce que xaalis bi ngay tiire ci sa biir réew xaalis bi day bari nañu respecter les agents de la banque centrale ñu respecter ces fonctionnaires de la banque centrale moi je ne suis man nekkuma géwalu France mais dama buggul di wax luy dañ mënoo nekk ak sénégalais yi di leen wax ne dañu war a xeex France waa lan moo changé France bi ñu doon waroon xeex bay song seeni enseigne lu fi changé lan moo fi changé mënoo am France ñu am deux cent soixante dix sociétés ci biir Sénégal am lu tolloog presque trent six mille personnes yoo xam ne ñu ngi leen di liggéeyloo di leen fay weer bu dee li ma d'accord mooy nañu nawlante mooy dooma nax li ma d'accord mooy dooma dóor li ma d'accord mooy dooma noggatu li ma d'accord mooy doo jël suma alal di ko lekk man ma toog waaye waxi nax sa xandang nañu génnee ñii nañu dàq ñii alors que yow doomu Sénégal yi ñu ngi fépp ci àdduna c'est pas un discours responsable te nag dama am lu ma metti quand temps des souverainistes africains ay activistes ñuy attaquer suñu président de la République parce que nag man d'accord na xarab suñu président ci suñu réew sañ naa ko mais du ma nangu benn doxandéem bu jógee fu ma xamul di dal ci suñu kaw président du ma ko nangu tey duma ko nangu la Sénégal suñu Sénégal la Sénégal ñun ñoo ko moom dama bëgg ñu xam ne ñi xeex ba jël ngannaay jëlub réew mu mënuñoo nekk exemple ci Sénégal ñun dañoo am culture démocratique tey jii quoi qu'on dise un parti comme PASTEF c'est un exemple pour la jeunesse africaine parce que am na ñu nekk ci beneen réew tey bëgg nañu xool modèle bi am fii Sénégal ñu jaar ci ngir ñoom seen réew lu mel ni Cameroun lu mel ni Congo ngir alternance bi ñu bëgg ñoom tam ñu mun ko am kon ñun mënuñu jël ay AES di leen jël di leen def ay exemple Sénégal buggul mel ni Mali Mali quatre heures d' électricité la ñuy am par jour ñeenti waxtu la ñuy am électricité ñun bëgguñu mel ni Mali bëgguñu mel ni Burkina gëj na ñoo fay salaire bëgguñu mel ni ñoom donc il faut qu'on soit sérieux li ñu am nañ ko jàpp ak suñu fukki loxo kon ngeen xam ne li ma gëm mooy li defar Sénégal ñun ñëpp ñoo ci war a jub li ma gëm mooy li war a defar Sénégal ñun ñëpp dañ ci am part de responsabilité j'appelle toutes les forces de l'opposition ñu ñëw ñu booloo ñu doon benn benn élection laa jàpp ne ku ci ne sañ ngaa demal sa bopp mooy élection présidentielle dinaa sol suma dal nag man kenn ku nekk ci ñoom danaa fa dem danaa wax ak ñoom soxlawuma nit soxlawuma fis soxlawuma gën cee bari kaddu wala gën cee bari euh, euh, ñoomin seen li ma jàpp mooy mbooloo mooy tax prochaine élection législative ñu mën a am la majorité à l'Assemblée nationale pour imposer la cohabitation parce que nag parce que nag parce que nag li ma gëm mooy suñu gars yi bëgg nañu mais wax dëgg yàlla mënuñu donc mënuñu mënuñu kon maa ngi am mbégte di leen remercier bu baax di kontaan lool ci jotaay bi et puis euh, di wax rek ne na ñu nañu nañu bàyyi xel sur la question des inondations nañu nañu bàyyi xel sur la question des inondations c'est près de 700 milliards lañ ci dugal 700 milliards yooyu jot nañu leeral 700 milliards yi ñu dugal ci inondation bi jàpp naa ne war na ñu leeral ko. pour que ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom it bu ëllëgee lu ñuy def ñu mën cee teg bët teg ci loxo en tout cas maa ngi leen di remercier merci infiniment